salaamaaleykum wa rahmatullahi mbokk mi ñu ngi leen di nuyu maag kilifa yi ma àndal alaaji abdourahman sarr mu ngi laa delloo nuyoo maag kilifa yi ma àndal ñu ngi leen di ziyaare itam bu baax a baax te di feeñal bu baax loolu olof di wax nammeel sunu digganteeg yéen waaye nag ndokk bi nu yàlla defalee nammeel ga kii wax ko mu toog ba ñu wal sëñ bi toog leen waaw bu kenn yalwaan toog leen rek déglu bu baax ku fi indiwaale loo narul mu ñibbi di nga fexe ba mu ñëw fii boo ko joxee ki sës ci yow mu jox ko ki sës ci moom mu jox ko ki sës ci moom mu jox ko Ibou Sakho dina agsi nameel bi olof di wax dama xalaat ne pireem piir mooy namm namm namm namm boo mënula sottal toog ca xaaj sa soppe toog ca Dakar nga namm koo gis maanaam nga nar koo gis nar nar ba mënula sotti ci say loxo mu di nameel yàlla mi mën a dogal nag dogal ci yow ak toxu fa nga ne maa mu toxal ko moom fa mu ne ba nammeel ga am ngeen gise comme nun namoon nanu leen ngeen nammanu borom bi dogal namma namma bi sot na seen namma namma am sunu namma namma am faf amee nanu ko namme woon kon dañ koy ameel cant ndax ci lii lañ daan daje di ko daje ci fii di ko daje ngir kii xëy na it ngir ñen nat ci ñii ak ñen nat ñu fàddu waaye daal fii lañ daan daje ci lii lañ daan daje ci kii daan tax it ñu daje mën naa am nag leen nat ci nun ak leen nat yu fàddu kon nar-nar bu sutee te borom nar-nar nar-nar rekk la am sottal borom bee ko moom su sa nar-nar sottee sottee nanga ka nare woon sottee ci lu demee ni lii santawar ndax dafa am ñaari baat yu jegeñ torop ci arab te bokkuñu prix li ñuy wax xabaaru ak xabaru xabaru ak xabaaru xabaaru mooy nar nar am loo nar ëllëg wala woo loo nar déwén loolooy xadaaw xadaru nag mooy mu sottee nanka nare woon ak fanka nare woon kooku jëlil ji rekk ko yor sa nar nar bu ne sottee nanka nare sottee fanko nare loolu mawla naa tabaraka wa taala moo ko jagoo mooy xadaru xadaaw nag mooy nar fas yéene naa dem suba Dakar koo koy xadaaw su ma demee maa nga jëm kër alaaji Abdul Asis maa ngi fa bëgg a àgg midi moins cinq maa ngi am yéene fekk ko ci wér ak toog maa ngi am yéene fekk ko mu toog moom rekk maa ngi am yéene fekk ko balaa añ maa ngi am yéene bokk ak moom añ ba maa ngi am yéene féete ko ndeyjoor am pas-pasi yéene bu naanee jox ma ko bër set di bés bi nga naroon nga dugg àgg ca heure ba fekk fa sëñ Abdu na nga ko bëggoon a fekke fekke fa añ ba noona féete ko foofa mu jox la loola nga naroon kooku mooy xadaru wuute naa nag xudru wuudaru xaab gi dañ koy mas long xadaru xaab gi dañ koy mas yet borom masque lonk googu nag ku ci dépendre safara nga jëm mooy mooy kattan sam jëf ji maa ngi ko defee ci kattan ci xudrutu laa ko defee defuma ko ci xaadaru te xudru dafa sore xaadaru muxtasaliya ak ahlu zulna du foofu la ñu wuutee dafa am ñu ne jaam lu mu def moo ko teg parce que am na xàmmee ak pexe ak doole ñii ne déedéet jaam lu mu def dañ ko ca bëmëx ndax mënu la sottal dara ñi wax na jaam bi lu mu def dañ ko ci bëmëx ak ñi wax na jaam bi lu mu def moo ko defal boppam ku ci nekkuñ ci njuumte ñi ne ci dëgg piir mooy jaam bi day nar yàlla sottal ko mooy ëhlu zulna alaaji abdourahman maa ngi day ndokkeel di ndokkeel sunu yaay ju baax ji di ndokkeel waa daayira bi di ndokkeel mbokki jullit yépp yi teew ci guddi gii te teew fi ngir nu jéem a dolli ci màggaayu Moustapha teraangaam ak lëf guddi yi ci àddina yépp juróom-ñetti guddee ci gën bëccëg àddina yépp ñett ci gën ku yàlla dimmale ba nga bokk ci génn guddi ci guddi yi gën nekkal ka ki gën kenn warulaa gën a sant guddig mawlidul Moustapha guddi àddina yépp moo ci gën bangal sa baaraam xam nga ku ko déeseegu laylatul xadr moo ko déeseegu laylatul xadr kat xayrun min alfi shari xam nga alfi shari ñaata la quatre-vingts ans yi toftal trois mois ak treize jours mooy mooy alfu shari junney weer juróom ñetti fukki at la ak ñaari ak ñetti weer loolu nit dund na ba tàyyi te dund ko génn guddi gu ko gën foor nga moo déeseemu leylatul mawlid xam nga bu ko déeseemu leylatul asra subhaana alladi asra bi abdi leylan min almasjid alarami ila almasjid alarja alladi barakna hawlahu maa ko def nag li nuriyahu min ayaati min nii nan tabid rek laam ji taalil la wax naa la ñetti guddi mawlud xabaar isra leylatul arafaati ci topp leylatul nisfu saabaane ci topp leylatul jumaa ci topp ci iidu duhaa topp ci iidul fitri topp ci defe naa wax naa juróom-ñett juróom-ñett yooyu nag juróom la ci seeni guddi foor seeni bëccëg foor yi ci des yëpp guddi yi rek a foor yi ci seen guddi foor seen bëccëg foor mooy guddi ajjuma mooy bëccëgi ajjuma di bëccëgu nisfu saabaan di bëccëgi eed eed di bëccëg ba foor na guddi gi foor nisfu saabaan guddi gi foor na bëccëg bi foor juma guddi gi foor na bëccëg bi foor wande mawlidu nabi li muy foor foor ci guddi ga la nisifu saabaan ca bee la ku yàlla dimbale nag de dogalal la ciy dogalam sa nar-nar nga jëme ko ci Moustapha mu teeral law ka nan ka nare kooku ameel na yàlla ak alhamdulillahi rabbil alamin yàlla nañ ko fi def déwén ak déwén jéeg ak déwénaati jéeg da muy bëree bëri te yàgg te ñu di ko defe ci ci ci ci wér gu ànd ak sutura mu jural nu it njéggal gu ànd ak ngërëm darajey Moustapha sallallahu taala alayhi wa sallam kooku moom kenn réeréwu ko nabi kenn réeréwu ko ku yàlla na rek gindi ku mu doon ëllëg xam nga kuy Moustapha sunu borom wax na ko lu mu waxul kenn te du ko wax kenn te musu ko wax kenn ndax nee naa la arab bu lay lakk lakk la keef goo xam ne te kanami keef ga amul waaw amul mimara wax bi génnu la te wa innaka la ko wax wa innaka ma kunta tadri ma alkitaabu wala alimaanu walakin jaalnaahu nooran nahdi bihi man nashaau min ibadina na ko joxor bi dakk na ko wa innaka la taadi ila siraati almustaqimi ila siraati almustaqimi siraati llahi daa wax siraati llahi kuy lay la si lowo maa fi samawaati maa fi al ardi dëgg dëgg ala ila llahi tasiru al umur kooku kooku kooku Moustapha bokk ko kenn bokkul ak juróom-ñeenti keefam ya ca lax sàpp naa la naan lakk aswaajaka allati atiita wujuruhun wa ma malakat yaminuka mima afa allahu alayka wa banati ammika wa banati ammatika wa banati xaalika wa banati xaalatika lati hujurna maaka wa imraatan muminatan إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكئها خالصة لك خالصة لك أن يخنك خالصة لك خالصة لك من دون المؤمنين جوجو أي كن دومم موي أين الرحمة الربانية نبيقوتة المتحققة العائسة بمركز الوهوم والماني موي نور الأكوان المتكونة الأبدان صاحب الحق رباني مصطفى موي البرق لسان ممكن دفع بمسؤول الأرباح بمسوتي بسبت مالية لكل متحارب موخم من البور لو الأوان ظهور قلوب الأنبياء ولا أواني من قلوب الأولياء كوكو ku yàlla dogal nga bokk ci xeetam yemu la ca nga gëm ko yemu la ca nga soppa ko yemu la ca nga dépensé teg ca ak jekk dal na la bu la gémmiñ jàpp yàlla bu leen gémmiñ jàpp yàlla bu mu ñu jàpp kele xéwal gu lay la xéwal gu rëy la wa in tuudu niamatallahi la tuuduha yàlla ne wa in tuudu niamatallahi la tuuduha suuratu Ibrahima yàlla wax na ko ci 34 aaya 35 36 nani yàlla wax na ko fa 17 18 dañuy def nag mu xaabal dafa wax fële ne wa in tuudu niamatallahi la tuuduha ne inna alinsana la zalumun kaffar wax fii ci Ibrahima ne wa in tuudu niamatallahi la tuuduha inna rabbi la xafurun rahim ca rek boobu mu xaabat yàlla ne sama xéewal yi su ngeen ko doon jéem a wàññi du ngeen ko mën waaw kañ ma laaj la nag loo mënul a wàññi di nga ko mën a xam ah wañña gi rek di ngeen ko të dina leen të waññu xiiwal gi di ngeen ko të allahu la si xalaqa samawati wa arda la wax wa ansala min assamai maan fa axraj bi min asamarati risqan lakum risqan lakum tegle fa ñeenti saqara wax na fa wa saqara samsa wal qamar daa i dayni wax na bu jëkk sax wa saqara al fulk tijri bi amri wax na leen wa saxara lakum ma fi samawati ma fi ardi ba mu teer mu ne wa in tuudu niamatallahi la tasuha su ngeen doon wàññi tey xéewal yi ma leen defal du ngeen ko mën a compter sanurihim ayatina fi lafaqi fi lafaqi wa fi anfusihim ata yatabayanna lahu annahu alxaqu min rabb awalam yakfi bi rabbika innahu ala kulli cheyin shahid ألا إنه في مرية من لقاء ربي ألا إنه بكل شيء محيط yàlla ne dinaa wane sama bopp dinaa leen wan sama bopp ci seen bopp ci seen bopp laa leen di wane sama bopp ba ngeen xam maay kan su ngeen génnee seen bopp xool jaww ji ma wan leen ci maay kan su ngeen génnee jaww ji xool daaba yi ma wan leen ci maay kan daa leen ko wan guddi daa leen ko wan bëccëg daa leen ko wan ci wéet wan leen ko ci wiridi amu ci nag teraanga bu ma leen tàllal ngeen nangoo ko na mu ware lu ngeen ci nangu lu nekk delloo ma njukkulu njekk bi ma yeesalaat njekk tàllal leen ko ngeen nangoo ko jëriñoo ko delloo ma jekk bi ma yeesalaat njekk tàllalal leen ko ngeen jëriñoo ko delloo ma jekk bi njekk bi ma yeesalaat ak njekk jox leen tàllal leen ko ngeen jëriñoo ko delloo ma ak njëkk bi li tax nag loolu mën a am mooy inna linsaana la zalloomun kafaarun fekkit inna rabbi la xafoorun rahim mu fab xafoor jàlle ko solaam fab rahim jàlle ko kafaar foo toll yaa ngi toon soxor yooyu laa wax yow nit boo xiifee toon yàlla soo regee toon yàlla kañ nga koy kañ nga koy gërëm boo xiifee tooñ ko boo reggee tooñ ko boo feebaree tooñ ko boo wéree tooñ ko boo raflee tooñ ko boo sàngoo tooñ ko boo bëggee tooñ ko boo jàqee tooñ ko tooñ gi day tooñ ci boo raflee mbaa boo xiifee mbaa boo wéradee mooy tawat gi tawat ak njàmbat tawat ak njàmbat ak su buuxulu ma roof nag wér fi nga koy tooñ ci wér gi mooy furtaat furtaat fàtte ko waaw kañ soo wéri dee saalit boo wéree furtat inna linsaana la zalumun kafaar li tax nag teraanga ji tee dog mooy ki nga ko séqal moo def de xafoor rahim xafoor a nga dellu ca salum rahim a nga toll ca kafaar ana kanti nun moo mën jox la taraanga joo war a tedde nga soppi taraanga ja arma xeexe ko borom mu téye sa la loxo damma ko ba téye arma ba ci loxoom delloowaat la ko ku mën loolu ñaari na ci bët ñu la pooseel nettoyé ko ba mu leer ne la xool ci alquran séen ci lu lay lor lu ne nga tegg ko lu lay jëriñ lu ne nga ñuuxu ko premièrement xiiwali bët bi ci gën a neex gën cee rëy mooy xàmmee sa doom ci gune yi xiiwal bu rëy la ñi yàlla xañ nag yi bët xamaguñu ni seen doom mel ci doom yi nit seen xale yi rek seen këlëg ne Musaa nga seen jaan ji teggi ko fële mu ne nag bu ci xool lu ma naqari de maa la ko jox joxe woo avance laajuma la ci pay nga lànk ne lu ko naqari rek nga ciy xool xool ko ba jant soo nga jox si reer ba suur dugg néeg tëj ko mu am ngor gu toll ni nettoyaatal la ko boo xëyee mu bàyyeeti koog yow nga delluwaat jox lay tànk rof cay siddit juróom-ñaar fukki malaaka topp nit ku ne kenn ku ne juróom-ñaar fukki malaaka la topp tourné ci sa disposition ñii ñooy fobeere ñii ñooy greese ok malaaka yooyu laa yaxsuuna allah maa amaruhum wa yafaluuna maa yumaruun ñooñu rek seen xéewal mënu la ko wax sunu borom ne na dégg na a yaxsibu insaan an lan yaqadir alayhi ahad ah nit dafa foog ne xaat kenn mënalutu ko dara kii doon ndox démb liir bu tooy bii woon bërki démb ki doon ram di detteer lu bërki démb moom la kattan jay ba mu foog ne kenn mënalatu ko dara ah moo gàttakal xanaa alam najallahu aynayni wa lisaanan wa shaffatayni wa hadaynaahu najdayni kéewal googu rek ci bopp mu ne su ko fay ñeenti loxo ci nekk yu bokkul sàkk rongañ tuflit ñendaxit ndoxum nopp ndoxum nopp dafay xaat xaat xaat ñendaxit dafa faaxu tuflit dafa leer rongañ dafa dafa xorom dañ ko sele yenn ndaa la jóge ku ne nag la mu laaj la ko defal parce que bakkan ci la nuu di jaar nokki moo ëpp doole camion bu deux cent tonnes genn nokke ko ëpp doole su muy jaar di génn nag buñ ko gereesewul su tuuroo rek génne litre yi deret ma fab ritax ritaxal ma fab rit toogal tuuti sëñ bi ñoom ci leneen ndax la ñuy jóge ma ne tiflit dafa lewet ndoxum napp dafa weex rongañ dafa saf xorom jëndexit dafa dafa dafa rataat su ngeen jéemee lim xéewali yàlla yi du sotti di ngeen ko mën a takk yi ngeen bokk su ngeen koy limit ku ne la ma ko féetale du ngeen ko mën a lim loo mënula lim doo ko mën a sant ma ne benn ndaa buy génne juróomi ndox yu bokkul rekk doy na sant yàlla dafa wax nag a yaxsibul insaan yaxdabu yaxsibu yëpp baax na ne an lan yaqdir alay aad ah doomu aadama dafa foog xaat ne kenn mënalatu ko dara ki foog ne kenn mënalatu ko dara mooy kan mooy ki doonoon as ndox barki biig ndox su feesul tënk ku mu taq balaa nga am jàmm raxas ko kookoo foog xaat ne kenn mënalatu ko dara ku foog ne kenn mënalatu ko dara liir bi ñëwoon barki dem indi yaramu nen taq rip kookoo foog loolu ki doon raam mënu la jóg taxaw te yori tànk moo jayu xaat ba foog ne kenn mënalu ko dara ki doon jóg barki démb di detteerlu moo foog ne kenn mënalu ko dara xaat ngir toog su ma am ak man-man bu mu yor xanaa dafa xoolul boppam ala najalloo aynay wa lisaanan wa shafatayn وهديناه نجدين نجد الخير ونجد الشر آه كوكو فوقات نفسنا كلا إن الإنسان لا يرقى لا يرقى لكوكو يبعن راوس تاعنا خمونا لمو يرناكو دفتكو دعا دقمان بامير ملوي من من بي بوابي خم خم بي أم أم بي دارو دعا دفنجو جم دنگا سولنا وچكو مامو وچلنگا دم يورك ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة بل فأنتم أن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يقدر سكرة ولا كبدة إلى يعني هو جدو ما عملوا هذا مفاد مفاد رونغاي خرم كبا مفاد faf tuflit lewetal ko ba mu leer mu fab kaxi nopp def ci ndox mu wex xat dox gannaaw nag rasaxar ay ay ñandexit ma ne fi ruu di jaar di génn genn nokki ëppe na àddina doole camion bu deux cent mille tonnes genn nokki ëpp na ko doole kooku ne fi muy passé ku ko gereesewul nokki gu génn litre diwli litre deret war naa génn bu yàggee nga dee mu gereesel la ko ak ñandexit muy génn ndànk doo ko yëg di duggaat ndànk doo ko yëg ni nit soxlaa nokki ak ni mu koy jëriñe ak ni mu ko mën a ñàkk a defe fa muy jaar bu ñagasoon mbaa muy jaar di bori mbaa muy jaar di nàcc du yàgg te dina metti mu daal di koy defal ñandexit looloo waral moo tax moom mel melokaan woowu nopp nag moo communique ak yóoru yóoru yor nit te tax mi kenn du ko upp te léeg-léeg nga nelaw su ko defee rewe xëj na ci mbóot xëj na ci mu bañ ko ci dugg ginnaaw say nelaw mu poson jamono boo ko jógee wextaan boowoo lay dàq nga wëlbati ko yaa ngaa nelaw rek yëgula ci dara ga pour lépp loo xam ne kii yaa ngi koy war a gis muy tëmba nga di ko gis mu daw nag sa gémmiñ fi la passage bi fi la yëppay jaar mu xam ne bu lewatul loo sax mu wex nga yàbbi bu yàggee nga dee mu neexal ko ba mu neex boo sàkkar mais mu neex nga wan naa si jóg mën a dox seetal rek boobu liggéey buri